di nuyu suma rak Mohamed Ambara di nuyu Girif Sougou ak Xaadim ak ñëpp rek di ñaan yàlla def jàmm ci réew madame Coulibaly soxna Awa Top ak ñëpp tey nu ñëwaat ci beneen dakaar Buzz sociale boo xam ne dafa am différence tuuti ak yeneen yi ñu ñëw kaa euh, bi dafa metti mbir day tool foo xam ne nag dañuy gëmm wax li tax ñuy gëmm wax nag mooy dafay metti ndaw si ngeen gis ma toogal dafa kon ak boroom këram di sëy li ci xew ci digganteem mu borom këram di na ko expliquer lépp parce que nit ñi tam balaa ñu laa dimbali il faut ñu xam lan mooy problème bi ndax jamono bi dafa yàqu dafa rëb dootoo xamante ñuy wax dëgg ak ñu dul wax dëgg moom nag dund na ko mi ngi ci ay jafe-jafe di fanaan ci mbedd bi ak ay doomam di tëdd ci mbedd bi moom ay doomam am ay problème du lekk du naan te mu nekk ci mbedd bi ak xale yi danger la beneen bi ci des mooy lii nga xam ne xew na ci famille ba mënta retourner ci biir famille dina ko expliquer parce que tam nit ñi il faut nga ñu xam lan mooy sa problème ñu mën laa jàppale dama koy bàyyi mu nuyoo wax problème bi lan la ak jafe-jafe ba tax ñu mën koo jël pour waxtaan ak moom mais ñi ci sàkku ndimbal ci jaamu yàlla boo xam ne nga ni jàpp nga ne li nga yor suñu borom moo la ko jox te nga bën te nga te nga am xolu partage ji nga dimbali ko ci lu mu gën a gaaw gaaw ndax soxla na ndimbal te mbedd mi mbeddum buur la te mbedd mi lu nekk ngi ci jigéen la yor na ay xale te bu jógee fii ci mbedd mi lay tëddewaat ci mbedd mi la fanaan su jógee fii ci mbedd mi lay tëddewaat bokki léegi nag li mu ci wax rek moom am nay bokk peut-être mënuñu koo jàppale mënuñu koo fat loolu peut-être ñoom seen vie famille la ñoom seen personnel la du ci xóotal parce que la tax ñoom mun noo nekkee noonu mënuñu koo jàppale peut-être ñoom la mais li ma ciy sàkku te mu ñor ma mooy dimbal man su ma amoon fu ma ko fat tey dama koy fat mais aw ko ci kër famille laa dëkk ñëpp. benn néeg la am comme ñëpp moom nag mi ngi sàkku ndimbal ci lu ci waay mën ci lu baax nga dimbali ko ci te xam ne sonn na te ki sonn ki ko dimbali mooy bokkam moo tudd. asalaamaaleykum maam laa tudd. maam Diarra problème yi lan la. problème bi dama am yàlla may ma borom kër maa amee 17 ans sama mbokk ñu am ñaari bant yu tàggoo yàlla yaan ma boroom kër ma sëy sa kër ma saar ñu am ay njaboot kooku laa gën a jabootal. mu bàyyi ma abandonné njabootam xaw ma ko woon nag ba dugg ci moom ndax moom noonu lay def ku mu tàggool dalay lay bàyyee ak say doom ñuy sama yaay di ci jàpp may góor góoru di juga ko daanu nekk sama kër ci amiñ benn mag bu góor laa am kooku génnee ma man ak samay doom waaw looloo waral coono bi ma ñëw fii. nga dëkk ci mbedd mi ak fi jamono toll période nawet la muy taw nan ngay dundee ci mbedd bi ak xale yi. sonn rek buy taw duma nelaw buy taw damay jug toog ut fu ma yóbbu xale yi ba mu sëbët garage boo Marisela laa nekkoon dafa fanaan police yi jëlee ma boobu ba léegi station yeeg fu ne lay ñaan pour tëdd jaaxle rek jaaxle boo gisee defe na maa ngi ci jaamu waaye li may dund man rek maa ko xam metti na trop muy sàkku lan nga bëgg léegi ku ma dimbali rek ma am fu ma nekk ak samay doom wala ku ma téyel samay doom wala ku ma ko ku ma leen dugalal fu ñu jàngee foo xam ne dinañ fa mën a yendu ma dem liggéey ndax bu dul woon ak ñoom duma ma sonn damay dem liggéey waaye man la leen yàlla dénk mënuma leen a sànni te awma ku leen téye sama yaay laa am ci ku ma mën a jàppale te amul yëfu boppam yi mu leen mën a téye amul fu mu leen mën a téye. lu tax papaay xale yi jëlul benn engagement ci doomam yi. ah xëy na moom moo ko xam noonu lay def de moom de ku mu tàggool am ak yow ay doom noonu la lay def lu toppatoo say doom du la faale sa numéro sax dootu ko am. xamul ci luñ nekk. fan dëkk. muy Kër Massar bi. ñaataat ngeen sëy yéen ñaar. yàgg na ndax am nañ ñeenti doom kenn ki gaañu de sa ñetti doom. ñaar nekk ana keneen ki. keneen ki mi ci sama yaay. boobu ba léegi amul benn yoon bu muy nemmeeku doom xool ci lu nekk. déedéet amul benn de man de maa fa mës dem pour jëli sama kayiti doom waaye moom de du leen seet du leen woo téléphone sax. mi ngi lay seetaan moom lan nga koy wax moom mi nga xam ne da ngeen doon sëy si farta yàlla su mu xam ne am ay doom mu abandonné la ci li nga wax bàyyi ay la bàyyi doom yi. Ah, xam ne doom yi moom ay doomam lañ eh, jooyuñu pour juddu yàllaa dogal mu jaar ci ñoom comme daw na ay responsabilité man mi jigéen mënu leen a su ma sonnee rek samay doom ñoo tax ma sonn ndax bu doon man rek du ma sonn du ma jaaxle kenn du ma gis waaye man lañ am ginnaaw yàlla mënu ma leen def neen ñoo ma tax a sonn. dem far nga fanaan. démb ci station bi Pikine. station bi nekk Pikine. waaw ci mbedd bi. waaw. loolu risque yooyu ngay jël ak jamono bu metti bu rëb bi tey lu mën la cee fekk tey est-ce que loolu wóor. waaw ah, wóorul kay wóorul moom rek waaye xale yi rek nekk mën nañoo arrivé xanaa boobu ba tey yàlla moo may suturaal sax ak sama yaay ji dëkk di ma ñaanal waaye metti na daal wóorul dara. metti na muy lu metti loo xam ne Seydou. li ma ciy wax rek mooy que ni man man waxuma ak moom mais man papay xale yi laay wax euh, daf ci am góor ñoo xam ne nag na ma yàlla baal doonoo irresponsable parce que nit bu leen yàlla boolee ngeen di sëy même bu fekkee yaayam dalaa laa da ngeen a rayante yow ak yaayam la mais li nga xam ne moom mooy warteef bi war sa ak say doom na nga ko def Euh, àdduna nag yàggul li tax nag doom di gimmi gis papaam boo ko tegalee mu bëgg koo rey ñu ne paap doom ji daa bon lii mooy wax lii mooy tax parce que am na loo xam ne bu ci xale màggee du mën a bëgg baayam ilal abat àqi jur ci doom am na waaye àqi doom ci jur am na ndax bakkan bakkan rek la te nit dana jur ëllëg mu am àq digganteem ak njabootam yow mi sëy ak nit ba yàlla def ngeen tàggoo sëy dagan na tàggoo daggan na waaye doom yi nañ ci jël seen responsabilité xale yi bu ñu màggee du ñu yéene wéy bu ñu yéenewul seen papa dara day jaadu ndax seen papa est-ce que lebaloon na leen ko kon nañuy bàyyi xel léeg ñu mere doom ci dafa topp tawul wéjuram déedéet buñ ko mere dafa fekk la wéjur daan waroon def ci doomam def ko kii ci mbedd ma lay fanaan di jigéen tey ma nga boo marisee tëdd suba ma ngi ci station bi yor ñaari xale yoo xam ne tey jii mi ngi wër ak ñoom amul fu mu leen tëral amul fu mu leen dugal jafe-jafe yooyu bu fekkee dangaa ànd ak nit tàggoog moom bàyyi ko muy dund loolu man mënuma la jàppee sax nit ku normal waxuma nag pour papay xale yi damay généraliser rek képp ku koy dund ak jigéen rek na nga xam ne sëg mujj tiital naa la parce que àdduna bari nañu fi ñëw di ma kalaame jataay yu mel noonu nanuy bàyyi xel njaboot gi li tax nu ñëw gannaaw yàlla ak yonent bi dañ yow mi ku góor ki da ci am part de mag ndax yaa gisoon seen wéyjur nekk ak ñoom booy xale judd ci ñu judd ci sëy nag pourquoi nga bëgg abandonné yaay ji bëgg abandonné doom abandonné yaay ji bu la neexee bul woo yaay ji bu ko toppatoo mais say doom jël say responsabilité kon loolu message la bu may bàyyi ci bépp parent bu nga mën a retourné wu téye say doom te ëllëg xam ne xale bi su màggee bu la defalul dara nga bëgg ko sikk tourné naa kaa xale bu jigéen toog doom toog fii ne ma sama papa bu ma deewee sax bu mu ñëw ci xale boo xam ne 11 ans la nan bàyyi xel yooyu tey lan nga bëgg tey maanaam yow lan nga bëgg bu doon yow ak yow rek mën ngaa liggéey mais sa problème mooy xale yi. mooy xale yi surtout ñaar ñu ndaw ñii ma yore ñoom ñoo ma jaaxal su ma amoon ku ma ci jàppale daal fu ñu dugg jàng xam ne dinañ fa mën a yend may xëy liggéey ma jël waaw loolu mënta am néeg bu ma nekk ak ñoom su ma xëyee ànd ak ñoom dem jaay. parce que yow pour nga mën a liggéey il faut tam nga tàqali ko xale yi parce que tam maam jaara mënoo dëkk ci nit ñi tam mënoo dëkk ci ci dama lay may am na ci xam ne yow sa liggéey yow yaa koy mënal sa bopp mooy xëy takk sa dem liggéey lay tax loolu nag mooy nga joxe xale yi ñuy dem jàngi yow nga takk sa sër dem liggéey ba moom du la dégg ci lu ñàkk fayda. Mhm. waaw loolu de laa bëgg loolu daal mooy sama bëgg-bëgg xale yi daal laa xamul nu ma leen di def xale yi rek ñoo ma jaaxal su ma amoon fu ñu nekk ma dem liggéey. xale ay manga rek la wala ay seex la. ay seex lañ. nu mu tudd. maam Jaara. ak Souleymane. depuis kañ nga commencé nekk ci mbedd bi. yàgg na yàgg na de léegi mu mat at après gàmmu daaw ba ren yàgg na de. da nga amoon foo ne foo fàkkoon di ba tëdd wala dangay ngay fanaan fii suba nga fanaan fee lan la. fee ay weer maa ko boo marisé ay weer tëdd naa ko fa ay weer bi ñuy bi ñu ba pare nag la police yi ne bu fii du pour fanaan bu fi kenn tëddati di fa ñëw ay minuit ku ñu fekk nga tëdd ñu yëkkati la. Hmm. loolu kañ la depuis kañ. loolu après tabaski bi passé la. après tabaski ba léegi fan ngay fanaan. ci yi rek station yi rek laay wër fu ma fanaan ma abal ma tëdd fa hmm, wala fu ay gardien toog rek xajal ma seen wet ma laal tëdd ak samay doom ba fajar ma jug dem ak ñoom boo malisee. boo malisee loo fay def. samay bagage dafa nekk ma ànd ak seex yelwaanal leen ñun lekk ci léeg-léeg bu tàngee ma jënd ndox jaay yooyu fay def. ñaata nga am. 37 ans. jërëjëf 37 la am ñu ngi ñaan dimbal nag ci lu mu gën a gaaw ku ko bëgg a dimbali numéro mi ngi ci barre écran bi plus rapidement ku mën a jël xale yi téyel ko xale yi mu dem liggéeyi ndax am na ci loo xam tam liggéeyi ko maye bu liggéeyee takk sëram mën naa liggéey am lu mu fayee lay boppam néegam ñu ngi koy sàkku ndimbal parce que mënta gàddu xale yi bëgg a liggéey comme seen papa moom irresponsable na ba mënta jël benn benn engagement ci xale yi. kon dañ koy bàyyi eh, parce que léeg-léeg da nga ciy tourné kaay xam sax sa xol dafay jeex parce que nit bu jigéen bu toll ni 35 ans di toltalaan nga mën a am ak moom ay doom bàyyi ko ci mbedd mi waxuma ak moom mais xale yi li tax ñu ñëw danga nga cee joué pas bu rëy say responsable da cee bokk nanu bàyyi xel doom yi buñ jotee yaay abandonné yaay abandonné doom ah, nan ko dimbali nag ci lu mu gën a gaaw ñu xool nan la ko mën a jëmbalee pour mu mën a liggéey takk sëram liggéey mën a jàppale boppam ndax li nga bëgg ci teraanga liggéey moo la koy mën a may nit ñi mën nañ laa jàppale teel la say doom waaye yow yaay takk sa sër dem liggéey kon ñoo ngi ko ci tàllal loxo tam ku ci mën rek ci lu baax ci lu mu gën a gaaw nga dimbali ko te xam ne sonn na ci mbedd mi lay fanaan ak taw bi ak nawet bi ak li nga xam ne moo xew ci mbedd yi saay saay yi ak yi nga xam ne léeg ñu tëdd ndax boobaa léegi lu mel noonu dalagu la nga tëdd ci mbedd am ay saay yu lay dab ak yooyu. déedéet ngi sant. baax na kon ñi ngi ñaan daal lu ci waay mën a dimbali nga dimbale ko ci lu gaaw